ci réew mi képp kuñ ko wax nga am lu la lu la lu la métti c'est c'est des choses gravissimes qui se sont passées euh, ci réewum Sénégal diggante 2012 ba 2024 am na sax ñu ne boo bëggee nga dem ba 2020 2000 ba 2000 awa est-ce que ñi ñu épinglé dans ces rapports là mm-hmm. euh, am na ku ma gis mu ne sénégalais dañu yàkkamti régime bi defagul que deux mois mm-hmm. am na ñu ne le temps de la justice n'est pas le temps des politiques mm-hmm. Georges mu nañu bàyyi la justice mu jël rapport yi gérer ko prendre le temps qu'il faut mm-hmm. mais bu ñu fàtt ne ci politique la ne est ñooñu nga xam ne ñoom la ñu épinglé ci rapport yi ñu bari ci ñoom di ay millionnaires pour ne pas dire des milliardaires est-ce que finalement duñu une menace pour le régime je le dis parce que quand je vois li ma gis ci presse bi nii ba léegi seen doole jeexul parce que boo xoolee presse bi malgré tout ce que disent les rapports am na ci léegi ñuy bind naan ah, la mu yoroon gàcce ngalaama diw la mu yoroon ay performance inédite nangam ak nangam ak nangam yooyu ça veut dire que yi seen doole jeexul ba léegi ah. Moustapha doole lan la ñu am dooley poos. waaw dooley poos moo tax may wax kay. mais euh, da nga ne wàllu politique la. Mm-hmm. Moustapha on a on veut faire de la politique autrement. Mm-hmm. te moom la ñu le projet vendre ah. faire de la politique autrement. Mm-hmm. tey ñii ma gis ñii ñi nekk tey au devant. Moustapha ragaluñu lu toll ni tarfatal ay xiifuñu. ñi jiite waaw. Mhm. ñu ñi jiite ñii. Mhm. xiifuñu tiituñu rafuñu. Mhm. te du ñoo xamante ne dañuy jaamu xaalis. te kenn du leen chantage ci li ma dégg. waaw mooy jaamu xaalis. gis nga kon ñooñu war nañoo mën a am yaakaar ne ces menaces là ne vont plus prospérer. et comme je di dit y un temps pour fair de la politique y un temps pour travailler gis nga Sénégal depuis mille mhm. jusqu'à nos jours mhm. c'est la politique qui nous a plombé waaw jël nañu seen esor ñun ñu des ci tarmac bi tey jii ñun li ñu bëgg ba porter euh, notre choix ci ñoom mhm. moo di ne jël notre envol te bu fekkee ne njiit yi ñu fal tey Moustapha jikko yi ma lim nii baaxoo nañ ko am nañ ko ces gens là nañu paaxewu door ñi ñi mën a jënd mooy ñi leen di bindal pour mhm. peut-être que euh, askan wi mhm. te askan ban la ñuy waxal aussi mhm. askan bi ñuy waxal askan boobu ñoo bëgg ñoom ñu rendre compte waaw askan boobu ñoo bëgg ñoom ñu goqi xaas bi ñu yor waa ji nee na demande sociale la léegi kon ñoom ñan la ñuy convaincre kon ñoom ñan la ñuy ger Moustapha ñoom li ñu mën a def instant bi xam nga mooy lan pour nekk seen teeyu bakken mooy dem transiger wala yoon ndaw si seen kaw mhm. transiger bi mooy lépp lu ñu guuxoon muy alalu askan wi ñu goxi ko mhm. seen jàmm ne ñooy suñ ko defulee yoon mi ngi fi mhm. Ousmane Diagne a du pen sur la planche waaw nee naa leen tout le monde s'interroge ak am fulla moom Ousmane Diagne où est Ousmane où est Ousmane ak am mais Ousmane euh, c'est une personne boo xamante ne mustapha su génnee rek ñëpp kontan hmm. man moom man moom yàkkamti naa conférence de presse bi muy njëkk a yàkkamtiwul xam na fi mu jëm xam na li muy def <laughs> te li may wax xam nga lan mooy doyadal justice wala mu doyadal nit mhm. mooy nga engagé benn poursuite si nit dem ba ci biir rocceekuwaat les gens vont commencer à douter comme li amoon ci CREI ak Macky Sall waaw les gens vont commencer à douter mhm. mais gis nga bii mhm. su defee lépp les rapports yi génn sénégalais yépp épouser li nga xamante ne moom moo ci nekk comprendre ba yëpp mhm. ba mu génnee moom ay réforme réforme am soumettre ko le chef de l'État mhm. ba ñu valider Moustapha mhm. ah non non non non ñiy cëppi-cëppi nii yëpp diñu naan les mouton bêler tabaski vient <laughs> ah non tabaski n'est pas loin alors suñu mbokk Awa man ak yow Sànnu Ndiaye mu ne merci Frangine Awa il faut être intransigeant Moustapha a raison s'il savait ce que certaines populations endurent comme misère Euh, nous qui sommes dans l'humanitaire pouvons en témoigner. Mhm. Euh, mu ngi noonu alors euh, ayoba waxtu wi jeex na mais ñu terminer ko ci benn affaire dégg dama dégg comment il s'appelle le porte-parole du gouvernement Moustapha Sarré mu wax ne l'affaire est entre les mais ci RFM la ko waxee est entre les mains de la justice affaire justice la et que ñoom le gouvernement ñi ngi ci ngi ci leneen mais du point de vue de la communication est-ce que dire ça doy na. parce que maa ngi koy wax sax gars yi ñi ngi dem ci plateau télé yi ñi ngi ci journaux yi ñi ngi fépp ñi ngi wax est que le gouvernement également warul am une stratégie pour communiquer à sa façon peut-être sur ces rapport la ak fan lañ ci jëm ak sénégalais yi. d'abord li ñuy li ñuy man pour man. li mhm. waroon njëkk mooy euh, li doon am traditionnellement mooy euh, ñi nga xamante ne ñooy euh, les magistrats de la cour des comptes. ñu jébbal rapport yi ki nga xamante ni mooy président de la république de manière solennelle mhm. ba ñëpp xam ni rapport yi jébbal nañ ko président de la république maintenant nag président de la république bu jëlee kàddu par exemple cinq minutes à dix minutes mhm. dana expliquer askan bi en en lan moo nekk ci rapport yi ak nan la ñu fas yéene mhm. taxawee euh, pour pour pour pour pour euh, pour lijjanti li nga xamante ni moo nekk ci rapport yooyu donc le ministre euh, de la communication a bien raison porte-parole du que rapport yi dañ koy bàyyi ci ci ci ci ci ci loxoy ci loxoy justice parce que le temps de la justice aussi n'est pas le temps des pas le temps des politiques c'est vrai que nit ñi yàqamti nañ et tout mm-hmm. mais damay rappeler ni en euh, novembre je pense 2012 yónni woon nga ma fi ci benn reportage benn benn benn personnalité bi moo doon jël interview mm-hmm. ñu koy wax Pape Mayel Diop c'était l'administrateur de l'APR mais absolument ma dem di ko jël interview c'était les premières heures du du du règne mm-hmm. wax ba pare après ñu ba interview pare en off mu ni ma tu sais Macky Sall il n'a qu'un seul préoccupation actuellement ma ko mooy ban mu ne ma mooy tëj Karim Wade. <laughs> Mhm. Mhm. par aucun coup de contrôle. c'est oui c'était ça le problème. Karim Wade il faut lui reconnaître benn corps de contrôle bu ko épinglé. moom il fallait coûte mhm. de contrôle yëpp amul benn IGE cour des comptes bu ci épingle alors moom ci la créé créé donc loolu la war a éviter fu mu toll nii. moo tax ñii et ñii. ils n'ont pas le génie ñoom <laughs> peut-être mun ngaa jël mais ñoom ni ñu koy jëlee moom ni ñu koy defee ah, moo ñaaw. du ñu ay sàcc yu ay sàcc yu aay ñu koy defee moo ñaaw moo tax Cour des comptes. dañoo foqale moo tax. bu Cour des comptes dafa ñëw rek gis gis gis gis gis sàcc gi bëgg lekkee ñaari loxo fu ñu xiifee. voilà mais juste Ayoba justement gis nga li Cour des comptes def noonu comme waaj jënd ceeb bi man ku ma fa de ku ma fa yóbbu ma def ko parce que dafa c'est tellement clair ce qu'il fait que bon voilà en tout cas maa ngi leen di sant di leen gërëm baax Awa Diop euh, Ndiaye euh, Georges Nesta Diop ak Ayama fay ñoom la doon àndal tey ci émission keppaar gi di gërëm techniciens yi ñu doon gunge.